yaaw magal nañ ci jaamu yàlla nangul ñu liñ ci jaamu amin murit magal saf na leen kon everybody sant leen ñëpp a ngi woon Touba Tijaani xaadir yeeg Laayeen ba ci suñu mbokku chrétien yu reev ñun een ku ne li nga am génn nga ko berneel joxe ndekki añ de seeru ak reer ak ñëw mën gan teru teral leen li bi def fi dara du ci neen autoroute la ñu jël ilaa martalu ak dem julli juuma ziyaar fépp fas fasaale ñëpp jàmm fuul réew mi wërngal këpp Touba moo gën a nekk Kong ceeb bi nii na ndawal li ñor xom raisin ak pomme ñibbi indi leer ak koom-koom jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Tuuba jërëjëf sëriñ Tuuba maga la ne mel di nga gis xeet bu ne ay moodu moodu nasaraan mag gu ne bamba fépp bamba partout <laughs> moodu bamba forever bamba jarna dangi dangi bamba jarna eh, dangi dangi bamba jarna dangi dangi bamba jarna dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi dangi